jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuy nañ leen am kontaante ak mbégte comme ni leen koy defalee saa su ne fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew jàngat làmb tàmbali na bàyyi jiili moo koy def mbokk di ci ànd ak yéen képp koo xamante ni euh, da ngay suivre wasaare làmb ñu ngi ciy ànd ak yow di la jaajëfal moo xam nga ne ci réew mi ak bitim réew. ci ànd bu rafet bi nga xamante ni yéen a ngi koy ànd ak waa wasaare làmb mbokk yi am na loo xamante ni jot naa xew fële ci stade Jom Iba Mar ki ñu fi woon di Assane Ndiaye Baol production Baol production woo ñu fi ci làmb mbokk yi boole ñaari ndaanaan xale bi di général marika ak fils de Balla ñu jël stade bi def ko noo xamante ni macha allah keroog foo sànni mbàtt mu takk stade Jom Iba gannaaw loolu. dem nañ ci ki nga xamante ni mooy général Malika après komba bi ni mu ko dundee dem nañ kër fils de la après combat bi ni mu ko dundee loolu yëpp dina leen ko dégtal ci biir jàngat bi su ko defee ñu gën a wéyal waxtaan. ginnaaw loolu dañuy dem stade Diop Iba Mar wan leen ambiance wan leen lépp loo xamante ni luy neexal làmb la wan leen dugg si mbëri su ko defee ñu dellu si waat ay ca nañ leen dem stade Iba Mar te ñëw. waa géeje waay gépp gunge nañu ko. yaa ngi bu mag. Fils de Balla muy ndaanaan ci làmb muy xale boo xamante ni làmb am nañ ci moom yaakaar waaye ñaari ndaanaan lañu boole Fils de Balla général Malika. noonu ndeysaan Fils de Balla noonu di dugg si boot nañu ko ndeysaan duggeel nañ ko ginnaaw ndeysaan duggee na ginnaaw Fils de Balla mu ngi duggee ginnaaw. dañu ko boot ndeysaan ndeysaan rakkam a ko boot deret dafa foor ndeysaan kii mooy yan bu diis rakk Fils de Balla la Fils de noonu di dugg si ndeysaan ma nga noonu di arrière di dugg ma ngay dugg Adama Fils dugg na ndeysaan ma ngay continuer di dem ma ngay dem dañ koy góobu ba ca géew ba wala déet Adama ñu ngi koy arrière ginnaaw la duggee tegtal la ci làmb tànk yi laalut suuf ndeysaan ma ngay arrière arrière na ndeysaan ma nga noonu duggee na ginnaaw booy baa ngay dem latéral ci yenn xibla la jëm wàccee na ko ndeysaan wàccee na ko daw na Fils de daw na mu ngay wër ndeysaan ma ngay wër Adama général Malika ngi noonu ci oto bi ànd naag waa Malika ànd naag waa benn baraak ndeysaan ma nga noonu sol njoxos ma ngay socc xaw bant lan la yor di socc ma nga fuddal loxo ya loolu yëpp tegtal la ma nga takk ay gàllaaj ma nga yor yu bari bari bari bari ci loxo yi leen ko may leen ko mu dugg général Malika ngi noonu di dugg si ci stade bi ndeysaan moom doomu Malika bi miin na lii bu daan dugg si terrain. déet waay. bilaay walaay wa taalaay. yi noo yomb fii de Balla waaw yow fii de Balla duñ moroomam taxuñu sax jóg. lu mu indi fekk ko fi mën nañoo bëri xeex lu mu bëgg rek ragaluñ loolu. dégg nga ñu àndal général. day si. Zé bu dugg ma ngay fëgg gala. day dugg rek siif. maa wax lii dama ni Zé bu duggee day siif. yaay lamb wax ci lamb Dakar ambianceur la. waaw waaw xale la. daa mën bés. daa am fu mu jógee am fu mu jëm. wallaay bu nee naa le général est là. mu ngi nii nee na Fils de Balla bu ñu bëree pare di nga tóoj. Fils ah, la ko wax de wóoru ma ji. waa kii sama mbër la maa koy engagé. ah waa général ma ne que maa koy engagé. man mbëru ñeme laay engagé mbër mu ragal aw ma ci affaire. maa ko bëgg. waxam saa waxee bu dee. ragal waa kuy ragal. xaw ma ko de. kan ma xoolal see. ma ngay sotti ma ngay sotti ma ngay sotti général Malika. jëlaat na beneen butéel. ma ngay sot ma ngay sotti général ma def ay débat déebam buur géwal ay débat déeb lay def li yëpp tegtal la miin na ko jaar na coom bi bëre fa na bi bëre buur jaar na coom bi bëre fa jaar na coom bi bëre fa jaar gànjaay bëre fa jaar gànjaay bëre fa Fatick bëre fa jaay joor joor bëre fa yaa ko bëre ay coom bi jaay zowal ay coom bi sama dëkk góor ku jaar bay waali maa ngi lay nuyu bay waali kenn maa aywaay eh, maa ngi nuyu ji jàkk waay. ji jàkk ku baax eh, eh, maa dugg maa ngi koy jaale si. coom bi xam. général dugg si ngi noonu di ngi noonu di dugg ndeysaan général a ngi noonu di dugg si Adama xale baa ngi noonu di dugg si saan am na lu muy samp ci suuf baal ma baal ma ngay léemu ndeysaan ma ma ngay léemu moom général Malika dugg si na doomu Malika baa ngay rëdd ma ngay rëdd daw na doxali stade ba yuuxu nañ mbokk yi gis ngeen dugg si général gis ngeen dugg si fis de la mu nekk xale yoo xamante ni vraiment keroog bi ñu dugg see ci làmb ji stade bi yëpp jóg moo lay wan ni làmb dafa namm komba jànq waaye namm na komba yoo xamante ni dër bi la diggante Malika ak fi nga xamante ni ñooy géejawaay sorewul gis ngeen fis de Balla bi mu dugg see ci làmb ji ni mu dugg see dugg si na ñu boot ko duggee ko ginnaaw mu dugg si ci ginnaaw samp na béjjan bi dugg na ci stade bi dongali mbooloo mi yëpp yuuxu gis nga Fils de bi mu ñëwee ci làmb ji moom it ni mu dugg see ñoom ñaan ñëpp ku ci nekk dugg si na dugg si ndam ku ci nekk dugg si na dugg si boo xamante ni ñeme wax kenn mooy gañ a làmb ji ndax ñoom ñaar ñëpp ñu dugg see ci làmb baax na dañuy dem ci biir wan leen combat préliminaire yi su ko defee ñu ñëw ci grand combat bi fas yéene waxtaan ak yéen. ayca nañ dem indi combat yi. arbitre baa ngi wax ak ñaari mbër yi wax ak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ arbitre baa ngi laaj ay juge am baa ngi jox ci diggante internet ak Pape Thiam Baye Balla siyaar naa la internet a ngi dox ci da ngay dellu gannaaw Pape Thiam door na ko léegi internet daw na jël ko internet Pape Pape Thiam moom la ñu jàkkaarloo internet moo ñu wan ginnaaw ku nekk a ngi dóor internet Pape Thiam lu cay xew internet daanu internet doon na ko fàq kanam nga daal ko suuf internet daanu na internet daanu na wala boog la habit ba di wax Pape Thiam am na ndam ca kaw internet waaw internet daanu nga. moo ngi ziizi arbitre bi sifflé na wala déet mu ngi xool ay siisam atu na laay bi sifflé taxawaay bi daa mel ne daa bëgg a dem bu arbitre ne prip laay ni day dem wala xeex ñaari ñaari ndaanaan lañ atu de jonn la ñaar xale yaa ngi noonu arbitre baa ngi waaj a soufflé waa arbitre baa ngi noonu di laaj ay siisam dox ci diggante laay ak Atou Junior ndeysaan arbitre ba réew na dafa neex ñu ngi noonu ay birisini ak Atou Junior est-ce que duñ ko téye bàyyi faatu arama te moo taxit moo ngi yëngal tàbbi nay faatu ay mbëri stade bi kenn mënul souffler ndax yuuxu li dafa neex arbitre si loolu ato si moo fee ca laay brise bi moo ato jiital tànk ndi joor wala tànk càmmoñ laay brise bi jiital tànk ndi joor ñoom ñaar ñu ngi lay ato ato junior mu ngi koy xool ci laay brise bi mu ngi koy xool ci ñoom ñaar xale kenn Bismillah laay biri fi aatu taxaw la bëgg a taxaw laay door du mën a ñàkk laay dagg na lewtoo bi aatu da koo bëgg jàpp waaye laay day bañ loolu bugul ñu teel daje ñoom ñaari mbër yi Ousseyn ñoo ngay leen ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu mbokki jàppante rek door na atu doona laay fay no na Baye Djily ndeysaan doon na la bëgg Djily jaay bi la bëgg jaay daan na ko jël bu rëy laay gis ngeen combat préliminaire yi vraiment gis ngeen combat bi nu mu mel xale yi bëri nañ wane nañ seeni jom wane nañ seeni i fulla wane nañ seeni fayda làmb saa su ne dama koy wax ne leen combat yu ndaw yi vraiment mooy combat yi nga xamante ni ñooy combat yi gën a metti combat mbër yu ndaw yi mooy doon combat boo xamante ni ndeysaan xale yi loo leen fay jar na ko ndax boo gisee bu ñu dugg see ci làmb décor bi ñuy indaale xeetu mystique yi ñuy indaale da ngay xam ne ay xale lañ malgré ay xale lañ waaye ñu ngi jël seen koom-koom di ko def ci làmb ñu leen di féliciter ñoom ñëpp ñu ci am ndam di encourager ñi nga xamante ni dañ cee am defet keroog ci bis ba ndax am na ci xale yoo xamante ni vraiment boo leen gisee ay ndaanaan lañ waaye keroog bisu defet moo ñëw tey bisu defet du bisu ndam. noonu la làmb saa su ne <laughs> ñaari ndab mooy dugg si waaye benn mooy génn sag dimanche sëriñ juum chaque dimanche sëriñ am ndam te loolu mooy làmb dimanche bu jot ñu daan mbër dimanche bu jot mbër am ndam mbokk yi loolu la demee woon léegi dañuy ñëw ci combat spécial bi su ko defee ñu dellu siwaat ci plateau bi waxtaan ci jàngat bi ay ca nañ dem mbokk yi combat spécial baa ngi noonu dox ci diggante Tek Choc ak Sa Diakhaay Tek moo ngi benn bras mbooloo Sa moo ngi nekk kii waalo moo ñu féete à gauche moo ñu féete à droite combat spécial noonu Sa Diakhaay Tek Choc Tek Choc Tek Choc Sadio Khaye eh sa Tek Choc daw na jël wala boog Sadio Khaye Sadio Khaye daw na jël Tek Choc Tek Choc Sadio Khaye eh Sadio Khaye door na Tek Choc jël na ko Sadio Khaye day xeex ak moom eh xale yaa ngay xeex Tek Choc Sadio Khaye Sadio Khaye mi bëggul jàmm de. Eh. Sadio Raay Baye doomu jaamu bi ngay dóor Sadio Raay teg sok Sadio Raay écrit waalo teg la ñu jàkkaar moo tent bopp bi Sadio Raay moo ñëwoon ginnaaw am si sok Sadio Khaye ñamante nañu léegi ñoom ñaar ku ci nekk xam nga lu sa Sokh ñëw na Tek Sokh Sa Diakhaay eh Sa Diakhaay Sa Diakhaay bàyyi doomu jaamu bi Sa Diakhaay Tek Sokh Tek Sokh jël na ko takk na ko da koy tegal séese lu mu koy def Tek Sokh Sa Diakhaay oh xale yaa ngay bëre Tek Sokh Tek Sokh daan na Sa Diakhaay jël mooy takk na ko doo ko mbot Tek Sok daan na mu nekk komba boo xamante ni combat bu neex la diggante Tek Sok ak Sa Diakhaay Tek Sok bëri na bëre bu rëy daan Sa Diakhaay daan ko Sa Diakhaay nekk na mbër moo xamante ni Sa Diakhaay làmb da nga cee bokk am nga ci cër am nga ci wàll keroog bi ngay mujj stade Iba Mar dangaa dóor mu daanu waaye dóor mu daanu kenn du ko indi ci làmb dalay dab gis naa ni da toppoon xeex bi loolu te malgré mën nga bëre champion nga ci làmb ndaanaan nga am nga ndoxtu boo xamante ne mu ngi yow mu ngi ci yow ci wàllu bëre waaye da jël bëre bi tegee fee indi xeex bi sa adversaire continuer di bëre di bëre ba takk la yegg la fu sori daal na jël boo xamante ne amul benn werante muy teg soog bàyyi leen ko xel bi ma ko gisee ci làmb ji mu dugg si nee xale bi su góor góorgóorloo tuuti mun naa doon champion ci làmb ndax vraiment am na ci am na fit am na gëm-gëm bi te am na tolluwaay boo xamante ni toll na ko bu ko liggéeyaatee tuuti incha allahu rabbi fépp fu ñuy dudd ndaanaan ci làmb di dinañ ko ci boole saa su ne ma wax ko man mbëri ndaw yi ñooy sama xarit ndax mbëri ndaw yi laa fi nekkal ndax yaakaar naa reporter bu ndaw ak mbër mu ndaw ñoo mën a ànd ma leen di jaajëfal bu baax a baax ginnaaw loolu dañuy dem ci débat bi wan leen général bi ñu demee ci cimikaayam wan leen fils de Balla ba ñu demee ci cimikaayam ñëw ci digg géew bi jox leen ci tuuti ay tegtal doog a ñëw ci grand combat bi ay ca ñu dem. daanaka moom moo ci des digganteem ak fils de Balla ay mbokkam a ngi koy yab gis nga mu ngi am lu mu koy xool ci bët moom général bu Malika actuellement fi mu toll nii. Ah. génne actuellement fi mu toll nii. dernier réglage yi jeex na conseil mbokk yaa ngi wax ma ngay simmeeku moom général Malika tuuti ci kanam diggante ma fils de ñu xool ba xam dinañ ko mën a g eh, g dégg nga lañ koy wax g général ma nga noonu ci débat déb bi baal ma rek. ah. waaw ah. bañ a xàmmee. ba ma xàmmee yow. lamb Luc Nicolaï bi. yaa final woon ak Serigne Ndiaye 2 boo yaa wex rek. waaw noonu la. noo tudd. lacrymogène. yaay. lacrymogène. lacrymogène. bu ba jaaxal non lan moo mel noonu rek. yaa ngi fan. rek rek rek général. waaw yaa ngi fan. maa ngi Badiana. Casamance. compétition bi mu amee ba léegi gisuma la. non mais damaa demoon compétit Badiana Casamance. maa ngi soog a ñëw fii nii ren moom bëgg naa compétit yu bëri ren moom sept toro laa am. sept toro Casamance. Ah. waaw. yow daan naa daan naa Boy daan euh, daa Texas. xoolal Boy Faye. nee na ko. ñëpp a ngi daw di solidarité ñoo bokk nekk CEDEAO ñoom ñaar wàcc na ba ci suuf ne ko hee hee mu xool ko mu joxañ ko ci bët ndax ñoo yàgg di entraîner ñoo yàgg xamante ne mooy compétition bi lii moo lay wan ni làmb saa su ne mën nañoo xuloo mën nañoo xeex waaye mënuñoo xastante général Malika mi bu dajee booy fay fii ci géew bi day metti waaye compétition bu amee ñu am lu leen boole ñoom ñaar ñaari xale yi saa su ne dañuy wanewaat seen bopp général daal bëggoon naa mu wax ma ban kàddu mu mujj bëggoon naa ko de général général ma nga ca compétition ba tey mënagul maye ma ngay xaar kaay Adama dinañ ko am. ah. ndeysaan ñu noonu di ko takkal benn morso bu weex ci bopp bi moom fils de balle la morceau bu weex bi morceau lu mu doon rax na wala déet. en tout cas gisoon naa ko ci open press bi tey gisaat naa ko fii morceau ba ñëwoon open press ñëwaat na tey ci làmb làmb lépp tegtal la làmb lépp tegtal la mbër bu amee combat fépp fu mu xalaat ni bu demee dafay am ndam day dem waaye boo gisee Fils de Balla nii mu ñëwee tey nga xam ne vraiment bis bi am na fu mu ko toll boo gisee tey nii mu mel nga xam ne bis bi am na fu mu ko tool rakk ji moo koy rakk ji moo koy takkal ay bagaasam moo koy takkal ay jaajam ndaysaan mu mel ni làmb ji actuellement fi mu toll nii xale yi surtout waa Géejawaay ñëw nañu en masse soutenir dooleel seen frère fils de Balla en tout cas daal général Malika dénk na ma damay xool ba xam moom dina ma dénkam déet nañu xaar mu génn ma laaj ko lan la may wax yan kàddu la may mujjee dénk balaa muy dem ci géew gi mel ni ku mu def kaay ma ngay génn dem ci diggi géew bi moom Fils de Balla ma ngay dem ma ngay dem ma ngay moom Fils de génn na ma ngay ñëw xaalal nañ ko. Fils de Balla loo may mujjee wax. Ndeysaan ma nga noonu. Ndeysaan dugg na dugg na Fils de Balla waxul. gis ngeen ñaari mbër ku ci nekk déparé na fi nga xamante ni mooy cimikaayam jëm ci géew bi waaye géew ba keroog amoon na xeetu neex-neex yoo xamante ni daa bokk ci luy neexal làmp ñaari mbër daje ci géew bi laale wane seen bopp indi li nga xamante ni mooy cosaan waaye nag dellu nañ ca la wolof doon wax naan wuro dem na këng wax mag dem dañ taali dàgg war na mbaam lu waaye doon jaay léegi mu lam général Malika fils de Balla def nañ open press kii xas ki xas ñu fas yéene départ génne seen kër ñëw ci làmb ja def seeni mystique des ci digg géew bi ñoom ñaar kese général Malika fils de Balla mbokk yi dañuy dem dégtal leen grand combat bi su ko defee dañuy barastiku rek ñëw waxtaan ak combat bi wax analyse bi xool nu ñu gisee ñaari mbari su ko defee ñu waxtaan ak yéen mbokk yi nañ leen dem xool grand combat bi fils de Balla général Malika ay ca ñu dem. Adama ñaari mbër yaa ngi wax ak ñoom arbitre leen wax lu règlement bi ak lu règlement bi ak Fils de Balla journée bi ñu doon xaar adduna bépp di ko xaar amateur lamb yëpp di ko bis boo ñëw loo bañ mu yegg si bul ko bis loo bañ mu yegg bul ko appal ak waxtu ak fa ame moo tax ñoom ñaari mbëri avertissement pour général Malika ci wàllu débat déet benn avertissement fils de Balla ci wàllu débat ñoom ñaar ku ci nekk am na benn arbitre baa ngi wax ak ñoom ñaar arbitre bi sifflé na mbokk yi dimanche 24 octobre 2021 fii ci arène stade Iba Malika féete leen di joor fils de arbitre bi sifflé na Ousseynou Diop. waaye jili combat bi combat bu neex la loo ci mën a gis mooy kii fi sa bala day xeexal général Malika waaye général bi xeex bi général Malika xeex bi du avantage am su doon maa maay moom damay cokkaas daw jël seen kii fi sa bi. général Malika ne xeex ak ki nga xam ne mooy fi sa bala moom looloo avantage waaye saa bu bëree kii di général Malika day fekk général Malika ci mëninam te loolu arrangé wu na di sa Fils de Balla daw na jëli général ay vertu ci suuf général a ngi doon Fils de Balla fàqan lu mu def Fils de Balla fàqan na ko na ma ngay dóor Fils de Balla ngay dóor def na trois appuis luy xew général def na trois appuis luy xew général def na trois appuis ma ngay dóor Fils de Balla war ndomba Fils de Balla war na ndomba bu mu jóg yëkkati na ko ci suuf dara xewagul Fils de Balla war na ko ndomba mu ngi door Fils de Balla ngi door Fils de Balla ngi door Fils de Balla ngi door Fils de Balla ngi door Fils de Balla ngi door Fils de Balla ngi door Fils de Balla ngi door war na ko ndomba mu ngi door Fils de Balla ngi door Fils de Balla ngi door général fañ la yegg sori na Ousseyn général fañ koy yegg sori na Fils de Balla ngi door yàgg na Fils de Balla ngi door est-ce que ci génn. daa nar a jóg. est-ce que général fi sa balla du ma ko mukk daa nar a jóg. fa mu ko yegg soo fi mu war a dal. lii penalty la bu dee football ñu ne penalty la. sa balla na ci lamb. général fi sa balla concentré fi sa na ko. bañ na ko na ragal naa général bu ci génnee ma xam ne mooy naa mu rëcc. général bu ci génnee ragal naa mu rëcc. Fils rëcc daanu na. Fils de Balla Balla général Malika. Fils de na ko. Balla daan na général. Fils de Balla daan na général. mbokk yi kenn du leen ko wax. ñu bari ci làmb keroog am nañ surprise bu mag a mag a mag a mag surprise bi ñu am mooy général Malika moo nekkoon favori ci kaw Fils de Balla waaye ñi àndoon na Fils de Balla xamoon nañ ki ñuy yab indi ko ci làmb mooy kan. yaakaar naa ñi ànd ak général Malika dañu ko yab indi ko mais général la ñu xam te xamuñu Fils de la te làmb du noonu adversaire du tuut saa su ne ma ni mbër bu jëlee sa avance rek gëm na ni mën na laa daan. su ko gëmul rek du jël sa avance fils de Balla bi muy jël avance général Malika gëm na ni mën naa daan général général bi muy jël avance fils de Balla gëm na ni mën na koo daan kon ñoom ñaar ñooñu ku ci nekk dafa am loo xamante ni moom ngay wane ci biir làmb ji ginnaaw loolu Balla euh, fils de Balla am na ndam ci kaw général Malika dinañ ñëw ci jàngat bi waaye dinañ dem kër fils de Balla wan leen ba ñu ko laajee combat bi nan nga ko bëree ba daan ki nga xamante ne mooy général Malika Fils de Balla lii la ñu wax ñu dem xool Fils de Balla. ñëpp xamee la xeex indi woo xeex nga indi beneen méthode maanaam ñu séentu fetal nga fit. noonu la expliquer ma combat bi. awa mbër yenn saa dañ lay séenee xeex nga ñëw bëri ñu xeex séenee la bëri nga ñëw xeex. Hmm. mais pour bëgg woon ne man dama mën a bëri. Mhm. moo tax ma fekk ci bëri mi ci lu mu comme li ñu ko joxoon. ñëpp ñëpp ñu ko joxoon na ko moom moom bëri bi man xeex bi laa moom moom. ma ñëw fekk ko ci bëri bi daan ko si. bi arbitre ne prip laaj la pare nga laaj ko pare na mu ngay seetaan nan nga bëree moom. li ma bëree franchement li ma bëre nag kii moom Balla Gaye woo na ma téléphone. Mhm. ne nii ak nii ngay bëree. te li ma waxoon lépp conseil laa bëri ak ñoom Lamine Golo. Hmm. Lamine Golo tamit wax na ma ne ma nii ak nii ngay bëree. Hmm. waaw ndax dañoo bëri léew. at bi génn na ma dox ci kawam avancé sax benn pas. Hmm. bàyyi góos ma xam naa ne su ma koy cookaasee day ñëw. man ñëwul sax après maa dem maa dem. ma xaar. ma dem jàpp ko. sonk mu dóor ay uppercut suuf. uppercut mu ngi doon daal. dal la daal. dal na si gémmiñ si tuñ. mu dóor ma hypercule mu dóor ma bàyyi ko ma jox sama kanam rek mu dóor mu dóor ma ma ko. mu fàqat mu dóor ma war ko ndomba. bi nga ko waree ndomba ci biir woon ndomba bi gis naa nga koy pompe dóor nga kuy yu bari mais kuy yi dafa mel ni dalul fi mu war a dal. wala loxo bi mu amul doole. kuy dal kuy dal dal mu fàtt kanam gi nga naan dóor kuy bu dal dina fàtt nii kanam gi. coono am na sens ma coono. conc xam nga conc bokkul ci làmb. est-ce que bëggul woon nga si. non nekkul woon da doon. non dafa maa conc nii la ma dóor conc la ma dóor si nii conc. conc la ma def. Hmm. damaa conc. léegi nga ñëw ci pompe bi nga commencé pompe. pompe xam naa est-ce que bàyyi na fi ma fi ma ko jàppoon fii ma suba dafa jóg. Hmm. waaw fi ma ko jàppoon fii ma suba dafa jóg. moment bi nga ko jàppee di xool tribune bi mel ni kuy fecc. dama doon fecc moment boobu bu rëccoon lan ngay wax waa Guédiawaye. du rëcc. du tax. damaa xam du rëcc rek fi ma ko jàppoon dafa dëgër. moo jàppoon moo dëgër moo tax mënut a rëcc foofu noonu fii ba suba dafa rëcc fu ma fa egg doo rëcc ak mbër bu munti doon nag fu ma fa foofu mbar boo munti nekk doo rëcc foofu. Hmm. boobu mbar ji su ma ko waroon doo ma sax du rëcc. sit bi ci ban moment nga ko daan. dama koy dóor caxabal. caxabal bi man gis naa ni bi ngay caxabal dugal nga tànk mais amul. bi ma koy dugal si lay arrière si toogee nag. bi ma koy caxabal. toog am na fa. waaw si lay si la caxabal bi du rëcc ko muy muy muy teg lii muy dóor fes bi. Hmm. Hmm. bi nga dóoree caxabal bi. caxabal bi bi mu rëccee sentir nga ko sentir bi ma bëggoon tànn. parce que ñu bari jàpp nañ sant caxabal bi moo daanloo général Malika. mais mm. caxabal bi bokk na ci li ko. moo ko moo ko pantaloo mu toog. caxabal bi moo ko pantaloo mooy bu duggoon. Mm. da daan gerte mu toog. bu caxabal bi duggoon. Mm. day tëdd nii jaaxaan. mais caxabal bi mu duggul moo tax. nga daan général bi nga jugee lan nga njëkk a sentir. sentir mu dara man dama xam war man mooy mbër kaamil war a daan keneen ku dul général. gis ngeen Fils de Balla bi ñu demee këram loolu la jot a wax nee na général respecté wu ko woon ci combat bi du ma ne respecté wu ko ci combat bi ndax yaakaar naa général am na erreur bu mu def ci combat bi ba daanu parce que erreur bu amul doo ñàkk salaam làmb bu amul mbër mi du daan mais am na erreur boo xamante ni wala ay erreur yu ñu remarqué ci général Malika. jàpp benn jàpp ñaar ba ñetti erreur yoo xam ne keroog def na ko ci làmb ja te képp ku ko analyser di nga xam ne lii du erreur du du loo xamante ne mbër dina ko def ngay njort ni dina am ndam ndam nag yàlla moo ko yor ñuy félicité waat bu baax a baax a baax fis de Balla di ko wax ni ci làmb nga bokk yaakaar naa wax bi la Balla Gaye wax l'ancien roi des arènes gën na laa yeewaat ci làmb nee boo sérieux entraîné concentré wu ci làmb kenn mënu la loolu nag wax la boo xamante ni yow mi nga xam ni yaay champion bi yaa koy mottalil sa bopp ñu lay félicité bu baax di félicité waa géejawaay fan yi gis nañ ndam yi nga xamante ni géejawaay ñu ngi koy am di siyaar bu baax monument ba liiru jaan xam naa ni bu ma déggee ne ma kaar bul catu waaye catu ma leen liiru vraiment ñu ngi jaajëfal géejawaay gépp gis nañ ànd bu rafet bi nga xam ne ànd ngeen ko booloo bi ngeen booloo ci làmb général Malika ma ñëw ci yow général ngay bëreeg ku mel ni Fils de Balle combat capital bëggoon nañoo xam fan nga nekkoon ba 17 heures et quelque ngay doog a dugg si ci làmb ji ci combat capital général lit frappe ak lit sans frappe du benn lit sans frappe mun ngaa bàyyi ba 18 heures nga dugg si ci làmb ji ndax làmb ji làmb guddi la mais lit avec frappe. débat débu làmb ni mu mel làmb ni mu bëree ay tegtal nga toog ba 17 heures et quelque ngay dugg si ci làmb ji bu dee da ngaa tardé lan moo la téye bu dul paan bu dul jël oto mu paan ñu baree bari mënuñu laa pardonner loolu war ngaa wax fan nga nekkoon bëggoon nañu ko xam waaye bi ñu demee kër général Malika vraiment fekk nañ ko ci ci anam boo xamante ni nee na ma wax dëgg bàyyi jiili bëgguma bañ a wax waaye fi mu toll nii sumay staff li ma bëgg a wax dafa bari mais nuñ ma tëgg actuellement nee bugguñu moom mu wax. ñaareel bi ñu ñëw bi nga dugg see ci làmb ji bi nga ñëwee général li nga li nga waroon def li Fils de la waroon def moom nga def ndax ñëpp xam nañ ni ndaanaan nga mais da dugg si ci làmb ji rek commencé soow commencé yëngal commencé wane te alors que da nga waroon def tekk def teey xam làmb ji lum la indil ñetteel bi mooy nga jëm nga nekk euh, CEDEAO vraiment di prépare ko CEDEAO compétition ba pare bëgg boole ñaari compétition bëgg a bëre de Balla bëgg prépare préparer te ñaari préparation yi ku ne xam na ni du benn ci làmb préparation yi mënul nekk benn CEDEAO ñi ngay bëreel làmb jooju amul jàpp ngemb amul dóor Fils de Balla làmb ji am na jàpp ngemb am na dóor staff euh, ñi nga xamante ne ñooy général Malika nañu xoolaat seen taxawaay ci xale bi nañ leen toogaat waxtaan xool conseil yi nga xamante ne war nañ ko ko wax ñu wax ko ko xool li koy mën a yàqal ci làmb ñu bàyyi ko li ko mën a defar ci làmb mu defaraat ko ndax yaakaar naa ne ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ te làmb mu ngi ci kanamu général Malick làmb ji yaatu na làmb am na ci moom yaakaar am na tegtal yoo xamante ni làmb ñu ngi koy séentu ci moom mbokk yi loolu la woon ci jàngat bi tey ñuy félicité waat bu baax a baax Assane Ndiaye Baol production moom ci moom la ñuy tëjee ndax dem nañ stadium Iba Mar ma ne ko amateurs yi nee nañ amateurs yi nee nañ amateurs yi nee nañ bëggatuñu nga leen di yóbbu stadium Iba Mar ndax Assane neexul ba neexul mais yaa moom stade Iba Mar nañ dem xool Assane Ndiaye promoteur bi. ana lu ma tontu ay ca ñu dem. amateur yi ñoo ma yónni amateur yi ñoo ma yónni amateur yi. fii yaay borom. non loolu dafa leer sant yàlla gërëm amateur yi sant leen gërëm Bamba Fall jili nit lu muy def na bëgg ba pare gëm ngi dégg. bëgg nañ ko gëm nañ ko xam nañ mbëri dañ lañ topp mbër bu ci am mën a bëre am public xam nañ la. Assane ni nga def stade bi nga yaakaar dëgg la wala yoon la lii mënoo ko woon yóbbu arène nationale Assane. non fii lañ ma jox demandé na arène nationale mais dana ma fii ngay tëggee comme combat yu yàgg la ñu war ko jukki ñu def ko premier journée rek dañuy nuyoo rek. suñ ñëwaatee nga xam ne lépp dëgg la damay nuyoo kese. prochaine Production. dans une semaine di nga dégg lu bees pul. maa la loolu la ma tontu ma koy jaajëfal bu baax njiital Baol Production gis naa taxawaay bi nga xamante ni mu ngi koy taxawaay taxaw ci làmb gis naa liggéey bu rafet bi mu koy liggéey ci làmb ñu koy jaajëfal bu baax di ko ñaanal lépp loo xamante ni séntu na ko ci làmb. yàlla suñu borom kàttanal ko dooleel ko ba mu defee ko lu kawe njortam mbokk yi ñu ngi waaj journée bu rëy dimanche bi ñu jëm le 31 octobre dox ci diggante Ada Fass Tapha Mbeur mbokk yi loolu yëpp dinañ leen ko gën a yaatal jukkit leen ko waxtaan ceeg yéen dem seeti ñaari xale yi ndax Ada ma nga war a def tey ci mardi bi li nga xamante ne mooy open press am Euh, Tafa mbër mu ngi war a def le 27 moom it li nga xamante ni mooy open press ñu leen di jaajafal bu baax mbokk yi di leen wax ni làmb bu neex di jaajëfal ki nga xamante ni moo ma solo di yëre bi ma sol. boo ko xoolee dangay ngay yaakaar ni yëre bi dañu koo jënd te fii lañ ko ñëwee ci réew mi muy noobul noobul nag xale la boo xamante ni vraiment xale bu am jomma day ñëw ay ensemble blouson day ñëw maillot day ñëw t day ñëw lu baree bari loo xamante xale yi dañu koy bëgg mu nekk xale boo xamante ni vraiment xale bu am jom la euh, numéro noble Serigne Saliou moom nga xamante ni moom mooy njiital noble ñu koy jaajëfal bu baax ndax vraiment li yombul ci réew mi ñu mel nii bu ñu nekkee ci réew jot na président de la république jàppale leen jàppale xale yi gën leen a taxaw xale boo xamante ni lii ma sol fii lañ ko ñëwee te dinaa sol yeneen blouson yoo xamante ni dinaa ko indi ndax seddaay bi mu ngi ñëw dañ ciy ànd ak noble mbokki bu ko defee ñu joxe numéro noble mbokki mu nekk xale boo xamante ni numéro noble képp ku ko bëgg foo mën a nekk ci réew mi ak bitim réew dana la ko ñawal ba mu rafet yónnee la ko ak t-shirt boo bëgg chemise boo bëgg lacoste boo bëgg tubéy boo bëgg mën na ko ñaw moom noble bu la ñawalee jiin nga yaakaar ni fii la bitim réew la jóge bu la ñëwalee t-shirt noonu numéro noble c'est 77 700 euh, double zéro da ngay def 7 def double zéro def 06 def 10 700 06 10 mooy numéro noble ñu koy jaajëfal bu baax Serigne Saliou di ko ñaanal jàmm ak képp koo xamante ni mooy liggéey ak moom di ko jaajëfal bu baax mbokk yi loolu lañ leen indiloon tey ci jàngat làmb di leen jaajëfal bu baax ci ànd bu rafet boo xamante bi nga xamante ni yéen a ngi koy ànd ak wasaare làmb di leen jaajëfal di am kontaante ak mbégte ci suivre bi ngeen di wasaare làmb doo lay jën ndox doo lay woykat public eh, doo lay wasaare làmb yéen la suñu mbokk internet yi di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen jàngat làmb jërë ngeen jëf.